mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñiy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di farataal di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Mamady Kébé Mamady Kébé nekk psychologue conseiller eh, foofu ca division de la santé mentale ci ministère de la santé ak de l'action sociale euh, monsieur Kébé ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM itam waaye laata loolu sant la gërëm la ndax xam nañ ne yitte yi bëri na jot bi matewu ko waaye terewul biñ la sollicité vraiment nangu nga wuyu si suñu invitation bi le monsieur Kébé dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. merci <clears throat> soxna Fatou Baba. naay mhm. nuyu waa auditeur FM di rafetlu sa sa teewaay bi fii. Mhm. Euh, di rafetlu également sujet thème bi nga choisir mooy santé mentale milieu mm-hmm. euh, euh, comme ni mu ko waxee mbokku auditeurs yi tey nag waxtaan bi ñu fas yéene ko jagleel li nga xamante ni moom la ñuy duppee santé mentale en milieu scolaire maanaam santé mentale ci bërëbu jàngukaay moo xam ci tout tànk yi ba ci enseignement supérieur wala euh, secondaire tey ji nag docteur suñu sujet bi wax nga ko dañuy wax lépp jëm ci wàllum santé mentale en milieu scolaire mais dañuy tàmbale rek ci li nga xamante xamante ne moom mooy sa métier di psychologue conseiller en milieu scolaire te jii bu ñu waxee psychologue en milieu scolaire euh, docteur Mamadou Kébé ñi ñuy déglu ñoom ils doivent s'attendre à quoi. voilà donc euh, en si si euh, école dafa am équipe plinaire bi fa nekk am na ay enseignants ñu ci domaine pédagogie mhm. mën na am également samay naataango psychologue conseil ñi fa nekk euh, ñu bëri na xamuñu leen mais ci centre d'orientation yi lay nekk ay CAOSP yi mhm. ay psychologue conseil ñoo fay nekk ñoom seen rôle bi en général c'est ñu topp xale bi la ñuy topp depuis maternelle bi normalement ba jusqu'au niveau de de la terminale mhm. ñoom mën nañu suivre dépister des des anomalies au niveau du développement psychomoteur de l'enfant développement psychologique euh, relationnel ñoom mën nañ ko dépister à ce moment-là et ñu jéem ko saafara après. Mm -hmm. donc psychologue conseil yi ñuy on les forme ici à l'INSEP à l'université. Mm -hmm. formation bi souvent c'est c'est c'est sur euh, deux ans c'est master 2 psychologie un master 2 en philosophie wala voilà, sociologie. Mhm. pour les dire ou bien nga nekk d'abord on a un travail social. liggéey pendant cinq ans préfère le concours professionnel pour nga mm-hmm. nekkaat am psychologue conseil mm-hmm. léegi ñu bari nag ñuy dans le système éducatif mm-hmm. d'accord mu mel ni cursus bi xaw na ya yàgg wax nga ko léegi ñu bari xamuñu lan mooy psychologue euh, conseiller ñàkk xam boobu ci lan la ci lan la ci ci lan lay jóge ñàkk xam boobu bon en général <clears throat> souvent ñi am problème yi ñoom ñoo leen di xam mm-hmm. parce que da ngay gis euh, xale boo xam ne waa waajuram gis ne mënul wax wala wax bi Euh, demewul noonu par rapport a âge bi mu waroon am. parce que voilà y a y a le retard du, du langage difficulté du langage wala voilà, euh, les cas d'autisme y a donc yooyu yëpp psychologue yi ñoom ñoo ko mën a détecter très tôt après xool ban orientation wala ban prise en charge euh, la war a mériter. Mm-hmm. donc psychologue yi après ñoom ñuy toog xaar en général enseignants yi ñoom bu ñu gisee ne xale bi am na difficulté de d'élocution wala difficulté relationnelle. Mhm. ñu ñu orienté ko au niveau de de du du centre du CAOSP. ce mhm. sont ce sont des centre d'orientation professionnelle et scolaire. Mhm. après psychologue conseil ñu fa nekk ñoom ñu jéem leen. Euh, indiquer direction à suivre. Euh, wax nga ko euh, joxe nga benn exemple certainement bu ci mel ni autisme wala yeneen autisme moom xale bi physiquement da ngay jàpp ne amul dara alors que am na benn handicap mu mel ni loolu aussi bokk na ci li tax muy yéex euh, détecté ko yombul parce que amul benn euh, jafe-jafe wala difficulté boo xamante ne de prime abord nit ki mën na ko seetlu ci xale bi nga xamante ne certainement dafay traîner yenn handicap yi. très bien wax nga dëgg loolu moo tax euh, prise en charge xale yi normalement si kër gi la war a commencer. Mhm. d'abord avant la conception conception bu bu ñu waree concevoir xale il faut d'abord se préparer à ce niveau là mm-hmm. mais sur le plan hygiène alimentaire comportement euh, en ce moment euh, yaay ji bu bu si jàppee bu nekkee jigéen du wérul mën na si mën na mën na si def ses consultations prénatales tout ça c'est pour essayer de détecter parce qu'il y a d'autres anomalies telles que les trisomies la trisomie 21 voilà ensuite l'enfant quand il vient au monde également voilà bu ñëwee bu xale bi bu bu duddooyee balaa muy juddu d'abord si si si si si conception bi conception bi xam comment. waaw voilà voilà si conception bi d'abord foofu la ñuy fagaroo parce que d'abord si hygiène bi hygiène bi euh, couple bi si hygiène bi la war a d'abord euh, euh, sexe ensuite si alimentation bi femme bi après si suivi grossesse bi suivi médical bi ba jusqu'au niveau de l'accouchement accouchement bi bu bu amee léegi il faudra que mu suivre que maintenant avec le niveau maternel maternelle. Mm. moom mën na xool automatisme xale bi est-ce que dafay am ay retard au niveau de l'automatisme. au mm. niveau de résolution des problèmes au niveau relationnel moom ak euh, naataangoo am yi yooyu bu ko gisee. mu xam day xam ne kii ni mu waroon évoluer évoluer wul normalement léegi en ce mën na xalaat ne kii dafa am problème en mm-hmm. général comme ni ko waxee noonu tardivement lañ koy gisee mm-hmm. mais buñ ko teeloon gis ñu ko au niveau di du psychologue conseiller moom moom avec euh, les outils yu mu am mm-hmm. il est formé pour ça il peut aider la famille détecter bu dee retard la bu dee autisme bu bu dee c'est il est hyperactif yooyu yëpp moom mën na ko mun na ko voilà détecter ensuite saafara ko avant avant que muy atteindre les paliers supérieurs de l' éducation. Mhm. Euh, mu mel ni bu ma la déggee loolu lépp c'est une chaîne de valeur ndax dafa am euh, fu muy tàmbalee am tamit fi nga xamante ne certainement euh, foofu la war a yegg docteur dañuy des rek ci wàllu woowu psychologie psychologue en milieu scolaire wala psychologie en milieu scolaire wax nga ko wax nga niveau d'étude bi mais tey jii bu ñuy wax lépp lu jëm ci wàllum psychologue en milieu scolaire wax nga ko région boo dem am na fa mais tey ndax ñoom euh, seen lim euh, euh, répondre na par rapport ak demande bi. Euh, oui bon à, à peu près euh, gouvernement mi jéem jéem ay effort yu bëri mais normalement région boo dem. Euh, psychologue yooyu ñooy chargé di orientation xale yi. Mhm. orient centre d' orientation yi ngay dégg ñoom ñoo fa nekk ñoom à peu près ak seen euh, entretien psychologique ñoom mën nañu xam xale bi telle branche la war a aaye telle autre branche la war a aaye au lieu muy tardé retardé imagine toi ñu am par exemple un enfant en retard mental. Mhm. retard mental da ngay gis yenn saa parents yi ne kut kut il faut que mu réussir si si études mhm. que psychologue conseil bu jàkkaarloo ak moom a di jël décision euh, indiqué parents yi ban direction la war a jël pour mu bañ a retardé pour mu a retardé parce que quelqu'un qui qui a un retard mental moom il a des difficultés d'acquisition intellectuelle moom orienté ko koo xam ne amul amul amul euh, un effort intellectuel affaire mhm. donc yooyu psychologue conseillers yi ñoom ils sont chargés de ça le milieu éducatif ñoom ils les ils les reconnaissent. ils mhm. sont bien reconnus à ce niveau là. mais euh, wax nga ko ci sa biir wax yenn saa yi waajur ñu seen doom réussir ci jàng bi euh, ndax des fois yomb na pour ngeen sensibiliser leen xam leen ne kii certainement doom la mais am na lenteur boo xamante ne pour mu emmagasiner expérience pour comme les autres dafay difficile euh, approche boobu comment est-ce que naka ngeen koy defee pour parvenir à convaincre yenn waajur yi. c'est c'est compliqué parce que souvent tardivement la ñuy ñëw léegi gis nga boo jëlee le cas du retard ñu ne la par exemple xale bu am dix-huit ans ba vingt ans normalement âge mental am ni muy xalaatee ku am dix huit ni muy xalaatee noonu la war a xalaatee. Mhm. mais nga am dix huit ans vingt ans ngay xalaatee comme xale bu am sept ans. Mhm. sept ans huit ans y a un problème. à mhm. ce niveau là. ñoom nag duñ ko gis ils ne ils ne sont pas formés à à reconnaître ces problèmes. wala dañuy bañ. voilà wala dañuy bañ léegi bu ñëwee nag psychologue bu ko gisee moom il va les sensibiliser sa xale bi sa doom bi. bu ko bu ko retardé si si si kii parce que quelqu'un qui aurait dû que ki waroon xa am xalaat vingt ans parce qu'il a vingt ans muy xalaat muy am vingt ans muy am xalaat ku am ku am sept ans a huit à kooku il ne faut pas le sur euh, sur les bancs. Mm ko sur euh, une autre activité boo xam ne mën na see génne te que ça ne demande pas beaucoup d'effort intellectuel. Mm-hmm. yooyu aussi le parent en général euh, le psychologue conseiller ak l'enseignant ak le parent mën nañ c'est une équipe quoi. Mm-hmm. donc mën nañ gisee toog waxtaan sur le sort de l'enfant pour expliquer parent yi que kii xale bi mieux ñu orienter ko dans ce domaine la muy son intérêt. yenn saay sax xam naa yéexaay bi dañuy gën a focaliser wu ci li nga xamante ne moom moo di si bi nga nekk moom moo di ay choses surnaturelles ba des fois mën na leen gàllankoor loolu ay croyances la yoo xamante ne pour ñu def euh, la part des choses euh, docteur Kébé foofu aussi j'imagine que euh, combat bu yàgg te metti lay doon entre yéen ak yenn wéyjur yi Euh, c'est vrai saa me fait même loolu tax na ba may rappelé wu benn jigéen bu indi woon doomam. Mhm. parce que dañ ko expliqué woon fan woon fii centre de transfusion sanguine bi mu ñëwee mu indaale benn photo photo boobu photo bopp xar xar squelette xar. Mhm. bi moom la for photo ko léegi indaale doom ji. doom ji amoon dix huit dix neuf ans yooyu xale bu jigéen ma ne ma kii sama sama sœur bi moo koy liggéey parce que gisoo photo bopp xar bi si suñ kaw terrasse la ne kon sama doomi ku am dix-huit ans rek da ngay ay école da ngay intelligent mais boo ñëwee ba dis huit ans rek mel ni mënatoo dara mënatoo comprendre kon sama sama grande moom moo liggéey. Mhm. mooy liggéey sama topp sama sama sama filiation sama doom yi di leen yàq noonu rek. waaye alors bi ma ko dégloo moo il avait pris ça au sérieux. si waaye. ça c'est ancré. voilà léegi du kooku rek même les sœurs même même voilà lignée bi yëpp noonu la mel ma ni ko léegi comme fii ni on est en milieu euh, hospitalier ma orienté ko au niveau du CAOSP de de de Castor parce que foofu yaa a une équipe là-bas de psychologue conseiller ni ko yóbbu ko foofu ñoom très rapidement mun nañ ko jël en charge te doo si fay benn dërëm dañuy dem ñoom ñu wax la fi mu war a jaar ñu jàppale la sax fi mu war a jaar mhm. pendant qu'il est temps mhm. oui mais sinon c'est ça les perceptions les croyances sociales font dañuy toog kër ga di joxoñante kii moo def lii kii moo def avec des pensées automatiques souvent négatives qui retardent la prise en charge mhm. euh, ndax yomb na euh, pour yéen ngeen euh, sensibiliser leen def ndax des bu ñu xasee am yenn idées yi pour ñu départir ci loolu day jafe ndax yéen yomb na à votre niveau yéen les psychologues conseillers. alors c'est pas facile parce que kooku koo gis il a parfois une carte mentale bu alim bu am des informations yu yàgg. Mm-hmm. depuis la mère depuis le le l'enfant voilà depuis le bas âge léegi noonu lay màggee ak information yooyu information yooyu nag mooy nekk parfois les croyances parfois rigides. Mm-hmm. léegi bu ñëwee croyances rigides yooyu mun na jur ay des pensées automatiques négatives. vous voyez mooy indi parfois un comportement qui n'est pas qu'on peut juger de ne pas normal mm-hmm. léegi ñoon bu ñu ñëwee quand on a des situations passées pareil ko dindi en un seul jour mënoo ko en un mois mm-hmm. maintenant de fil en aiguille avec un travail avec une collaboration soutenue on peut remplacer ces pensées parce que c'est ce qu'on appelle les schémas cognitifs négatifs mm-hmm. c'est un schéma cognitif qui est là maintenant qui est par des pensées erronées yooyu il faut discuter ngeen waxtaan toog waxtaan échanger souvent de fil en aiguille ba remplacer pensées yooyu par des pensées eh, rationnelles. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Euh, docteur euh, xam naa seen liggéey bi moom nekkul liggéey boo xamante ne yomb na mais ñu bëggoon xam rek euh, ci ban moment vraiment ngeen di intervenir ak seen coopération avec les établissements scolaires tan nga ñu ci mën a wax mais ñu commencer rek ci seen moment bi ngeen di intervenir. Euh, quand il s'agit des moments de crise wala genre yu ni mel. alors <clears throat> c'est à tous les moments comme je euh, li ma ni ma la ko waxee. Mm. région boo gis am na un CAOSP un mm. centre d'orientation socio scolaire et professionnelle léegi en général dañuy cibler classe yu commencé à partir de la troisième. secondaire troisième secondaire troisième secondaire mm-hmm. ba terminale. yooyu lañ ça c'est en général c'est pour l'orientation mm-hmm. mais n'empêche comme ñooñu ils sont sur le terrain mën nañ leen indil xale yoo xam ni ils ont ces problèmes de retard de développement mun mm-hmm. na nekk problème orthophonique mun na nekk problème de langage mën na nekk un relationel bu mm-hmm. buñ ko identifier mën nañ ko indil si ci psychologue conseil yooyu donc euh, collaboration bi en quelque sorte c'est c'est depuis le bas âge foofu lay commencer ensuite mu continuer jusqu'en de terminale ngeen ngeen ngeen a def le suivi ndax facile na. suivre c' est pas facile parce que à un moment donné du du du du psychologue bi rek moom moo war a intervenir. parce que y' a le le l' mm-hmm. donc ñooñu l' la ñoom dañoo waroon collaborer. ñu mm-hmm. ànd seen seen pexe. Mm-hmm. pour pour essayer pour ku ne euh, pas le seul habilité ou bien l' enseignant seulement pour mu euh, dindi xale bi wala jàppale xale bi si problème boobu. Mm-hmm. Euh, amaanama euh, du ñàkk ngeen di rencontrer ay problèmes spécifique wala ay problèmes typiques tey jii boo ñu doon wax ci problèmes yi ngeen di rencontrer lan nga ñu ci mën a wax de manière plus détaillée ngir auditeurs yi gën a comprendre. te li ñaan peut-être euh, waajur yi c'est que mm, koo gis këram mën na remarquer ne kii xale bi d'abord euh, assuré def ko waroon assurer un environnement mm-hmm. sain mm-hmm. environnement sain bi mooy d'abord sur le plan alimentaire mm-hmm. euh, sur les rapports entre les parents d'abord rapport éviter les rapports conflictuels xale bi mën a nelew correctement mën a jàng correctement au niveau de la maison yéey léegi bu bu remarqué que xale bi bon en fait euh, mi euh, am na yenn comportement boo boo xam ne euh, méngoowul ak ni mu waroon mel mën na en ce moment approché aux services spéciaux yi comme les les les psychologues au niveau des CAOSP. Euh, mm-hmm. voilà ñu signalé que le maître. Mm-hmm. le maître au niveau de la maternelle. Mm-hmm. au niveau de l' élémentaire wala au niveau de du secondaire le l' enseignant kooku moom mën na mën na mën aussi dépister. même s' il pas formé pour savoir ce que c' exactement il faut savoir que y a une anomalie. kooku mën na au moins au niveau du psychologue. ensuite ñu boole seen seen autour de mhm. euh, li ngay wax euh, docteur mu mel ni moom mooy dépistage euh, précoce yi nga xamante ni xam naa moom mooy laal lépp lu jëm ci wàllum ay trouble psychique ndax ñëpp ñoo mën a am flairu def yenn dépistage précoce yi waaw loolu laa lay wax ne léegi flair boobu parent yi d'abord mun nañ ko am. Mm-hmm. mais mën na mën na ko bañ a am au niveau de la famille mu ñëw école. am nga école ñëpp fay daje. Mm-hmm. alors y a le phénomène d'abord du bizutage mën nga ñëw élève mën na ñëw école fekk fa les aînés bu dee aînés yi déjà ils sont peu déviants mën nañ ko dugal si cigarette mën nañ ko dugal si alcool wala si drogue déjà donc le milieu milieu boobu mën na من هنا mën a am un effet sur sur sur l'enfant mm -hmm. sur l'enfant donc vous voyez donc à ce niveau euh, là l'enseignant aussi moom mën na xool le comportement de l'élève mhm. dans la classe mm -hmm. sa participation mhm. euh, son degré d'acquisition son degré d'attention la la la sa son comme on le dit aussi sa mémoire de travail la mhm. rapidité également dans la prise de décision yooyu l'enseignant mën na ko xool bu il a ce potentiel il ne le met pas à contribution moom il peut mën na euh, contacter la psychologue. Mm-hmm. wax wax moom pour ñu xool vraiment comment l'aider pour le ramener maintenant sur le bon chemin. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, loolu lépp euh, dafay supposer xam naa ñu tàggat ñi ñuy wax les professionnels de l'enfance ci ay instruments d'évaluation. bokk na ci enseignants yi assistance éducative yi loolu aussi ndax euh, formation professionnelle bi euh, ñun à notre niveau fii ci réew mi am nañ ci assez d'aptitude voilà bon peut-être que mënuma si se répondre au niveau de la pédagogie mm -hmm. mais je sais que enseignants yi son sur le plan pédagogique am nañu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 jur yenn xale yi ñu am ay yenn comportement yi wax nga ko sànq ci misaal euh, jël alcool wala jël li nga xamante ne moom moo di drogue dure alors que sax seen âge daanaka euh, tollul ci yenn niveau yi tey ji docteur ñu taxaw rek ci li nga xamante ne certainement moom mooy gën a yàqal xale yi seen comportement ba dem sax ba euh, yàq carrément seen seen jàng wax ci wàllum drogue bi mu mel ni drogue bi ci milieu scolaire bi wax nañ ko wax ko jël nañ fi ay mesures mais mu mel ni tey la gën a bëri doole ci milieu scolaire bi euh, ab taxaw jàngat aussi war nañ ko ci mën a def euh, docteur Kébé Ah, c'est c'est dommage c'est vrai que milieu scolaire bi normalement milieu boobu foofu mu nekkoon euh, euh, grandir le concept grandir en harmonie mm-hmm. en harmonie c'est-à-dire avec euh, sa conscience son développement intellectuel développement physique mais malheureusement c'est également milieu boo xam ne il y a le phénomène du mimétisme mën na fa am maanaam mooy toppandoor nga topp nga gis koo xam ne moom yoon bi mu bi mu jël yoon boobu du yoon bu baax mais comme xam nga rek développement xale bi am à un certain âge de développement day commencé génn day am des changements d'abord physiologiques sur son organisme mm-hmm. ensuite euh, il y perception beneen perception lay amal euh, dund bi ngay gis muy commencer di comparer boppam ay yenn vedettes yi ay yenn artistes yi ay yenn célébrités yi donc euh, même si célébrités yooyu c'était c'est pas des des exemples c'est pas des références mm-hmm. ñoom célébrités yooyu image yooyu ñuy kii muy ils peuvent ils peuvent faire exactement comme ça mm-hmm. célébrité référence am si c'était c'est un wala bu drogué la wala il wala il est il est déviant yooyu genre yooyu la ñuy topp. Mhm. comme tout à aussi ni ma la ko waxee si bizuta da ngay ñu ñëw école fekk fa seen aînés yi. eneen yi nga xam ne déjà ils sont ils sont déjà déviants et ne comme ñoom ñoo leen waroon recevoir en accueillir leen si si établissement bi ñoom bu dee il sniff dañuy dañuy tux wala dañuy sniffer dañuy naan. ñu dugal leen si circuit boobu. vous mhm. voyez alors mais l'un dans l'autre c'est que yooyu yëpp normalement enseignant bi et pédagogue ki la mën na remarquer mën na remarquer comportement asocial boobu et tirer sur la sonnette d'alarme mhm. waxtaane ko ak euh, encadrement établissement bi <coughs> et éventuellement impliquer Euh, le psychologue conseiller pour euh, essayer de redresser la barre très tôt. Mhm. yooyu yëpp mën na nekk. Mhm. donc actuellement on peut dire que euh, équipe bi bu suudewu il peut faire des mën nañ def ay ay ay ay jéego ci côté yooyu. Mhm. redresser la barre wax nga ko mais dafay fekk ki nga xamante ne moom moo tollu situation non seulement moo xam ne mu ngi commencer di dévier nécessité na ay conseils mais foofu ban. ban responsabilité la ca waajur yi di di am laata ñuy ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy les enseignants les pédagogues wala encadrement scolaire bi. voilà xam nga parents yi après tout finalement ñoom ñoo ci gën a sonn parce que boo xoolee même ku wéradi souvent hôpital day dem ba à un niveau de de, responsabilité mu yem foofu le reste parents ñoo si gën a sonn. Mhm. léegi parents yi bu ñu amee boo bu amee des signes d'alerte bu xale bu mel noonu il faut nga woo ko sensibiliser ko expliquer ko potentiel bu xale bi amoon potentiel bi mu am exactement et xale bi lan na mën a devenir par rapport à lui-même wala par rapport aux parents et que bu bu bu euh, ñu ko bàyyee noonu charge bi mu war a bu mu war a nekk à leur niveau également il faut sensibiliser à ce niveau là parents yi en général euh, ils accéder ils peuvent comprendre comme ça ñu collaborer ak yow avec l'enseignant et le psychologue pour euh, essayer de de de comme je vous l'ai dit tout à essayer de régler le problème. Mm-hmm. Euh, milieu scolaire nekk na milieu boo xamante ne ñu bari ñoo fay daje mun nañ la yar sax yar bu mucc ayib. comme ni nga ko waxee nga ñëw dévier fekk dara euh, dugalu la ci lu dul li nga xamante ne moom moo di toppandoo docteur Mamady Kébé yaa yaa ko wax mais bu weesoo li nga xamante ne moom moo di drogue bi xale yi jël def ko comme euh, sachet ndox boo xamante ne da nga koy jël dem ca boutique ba naan ko xam nga ne am na ay jafe-jafe yum la mën a jural ban euh, beneen addiction moom moo leen mën a jural vraiment ñu commencé sombrer bay dévier voilà drogue bi moom foofu foofu peut-être euh, établissement bi mën na xool tout ce qui entoure établissement bi en terme d'environnement. Mm-hmm. li ñu fay jaay euh, produits yi ñuy jox xale yi. xale yi li ñu consommé au niveau de l' établissement yooyu je crois que établissement mën na veiller à ça maintenant au niveau de de la maison parent yi aussi mën nañ veiller euh, sur certains signes d' alerte sur sur le comportement de l' enfant mm-hmm. maintenant en dehors maintenant de la drogue il y a d' autres types d' addiction comme les gadgets gadgets yi ngay gis ni connexion longue connexion vous voyez les enfants maintenant presque ils sont ils sont ils xale yi xale boo xam ne suffit avec son portable, il n'a pas, il est coupé du, du reste du, du donc il devient addict à ça. voilà yooyu ngay gis xale bi moom mii si si si si portable am bi si connexion am bi même bomb mën na éclater si wetam bi du ko yëg. waaye donc euh, portable ci addiction maanaam tàmm mu am si si portable am boobu moo koy gënal jàng leçon moo koy gënal yenn éducation même euh, si sur le plan relationnel ak euh, waa. kër gi. ak mhm. euh, euh, waa école gi. Mhm. tout ça genre forme forme de drogue la. Mhm. forme d' addiction la donc il faut daal ñu ñu bàyyi si xel si yooyu yëpp pour essayer vraiment de de xale bi màggee en euh, en harmonie. mu nekk koo xam ne day social. c' est justement. d' moo mel ni docteur Mamady Kébé responsabilité yi dafa partagé. waaw c' est justement c' pourquoi ma ne la au début c' était bu équipe la équipe bi normalement kër ga la war a commencé si waajur yi waajur yi ensuite. école bi école bi ensuite au niveau hospitalier parce que mhm. hôpital aussi am nañ seen seen wàll de sensibilisation ensuite maintenant y a les psychologues donc équipe boobu noonu la l'association des parents d'élèves ñoom ñëpp ñoo ñoo waroon manko essayer de de d'échanger sur le sort si xale yi xale yi donc responsabilité yi donc c'est à tous les niveaux. Mm-hmm. ku relâché rek mm-hmm. sur sur l'enfant. Mm-hmm. Euh, depuis le début yaa ngi utiliser euh, le mot sensibilisation mu mel ni seen euh, liggéey lu ci bëri dafay gën a yëngatu ci wàllum wax maanaam communiquer communiquer communiquer ndax approche bi yomb na. ah c'est c'est le début et mooy euh, mooy début bi mooy mujj bi aussi communication il faut ñu waxtaan au niveau familial c'est-à-dire si si si waajur si professionnels yi il faut que ñoom ñëpp ñuy toog waxtaan si si si affaire xale yi. Mhm. élèves yi waxtaan bi rek moo fi nekk sensibilisation bi c'est en amont et en aval là il faut d'abord ñu sensibiliser euh, waajur yi ensuite sensibiliser xale yi sur euh, gravité sur. Euh, danger yu wër yi leen wër voilà si seen environnement bi ensuite euh, malheureusement bu si le problème euh, problème bu amee aussi continuer la sensibilisation pour euh, aar ñi xam ne vraiment on peut mun nañ leen mun nañ leen aar mhm. ñu ñu ñu sombrer dans de de dans le dans problème yoon bi yoon bi day mel ni lu gudd yàgg aussi oui mais c'est sans relâche faut que buñ ko taay waa juri waruñu si taay ne li ñu ngi fii niveau hospitalier niveau établissement scolaire ñoom ñëpp euh, war kenn waru cee taay donc euh, sensibilisation c'est sans relâche. Mm-hmm. oui oui euh, du ñu wax ci lépp lu jëm ci wàllu santé mentale nag docteur ci waxuñu ci certainement ay faits d'actualité léegi dafa mel ni suñu ndaw yi moo xam ñiy jàng wala ñuy bàyyi jàng te mu am ay motifs yu bari yu ko jur dañuy xaw nekk ay nit yoo xamante ne dañuy jël violence rek teg ne moom mooy régler bépp jafe-jafe bu ñu mën a jànkonteel gis nañ fi ñoo xamante ne pour un rien ñu génni ab paaka ameen nga ma xaalis amaloo ma xaalis mu mel ni dañu jël benn violence daal di ko jël loo xamante ne moom mooy régler comme ni ma ko waxee lépp jëm ci wàllum difficulté te ji docteur Mamady Kébé pourquoi on est arrivé à ce niveau particulièrement ci ci ci jeunes yi Eh, li nga wax am na solo eh, gis nañu fan yi passé seulement yu neen ay pour cinq cent francs xale bi rey xaritam parce que mhm. xaritam la mhm. mu rey ko jam ko paaka mu rey mu dee donc euh, violence yooyu boo xoolee li ko laal presque boo xoolee duñ ko wax souvent il y a problème de responsabilité lié à la drogue waaye waaw même chez nous da ngay gis famille bi ñoom ñëpp a xam ne kii day consommer drogue mais kenn du ko wax même bu fa jaaree am problème psychique nañ la noo kii dañ ko bëgguñu ko dañ ko liggéey tout ça duñu ko duñu duñ ko orienté responsabilité au niveau de de la drogue donc violence bi ngay gis ni e souvent avec euh, l'âge parce que sànq wax naa la xale bi il est en il est à la recherche de lui-même. Mm -hmm. Ces périodes d'identification de, de, de, à, à, à, des vedettes, à des références, il, n'a pas de repère il n'a pas encore de repère. Yooyu maintenant avec le développement des des de de l'information facile voilà voilà gis nga yooyu moom mën na comprendre ne que par exemple wala yenn violence yi mën na ko dural peine de prison wala yenn gàllankoor si mun na ko gàllankoor si dundam du ko du ko du gaaw ko avant balaa mu koy comprendre fekk déjà def na mal bi mhm. donc yooyu boo ko gisee souvent y a d'abord le facteur éducation au niveau de la famille foofu yaa yi benn relation Euh, relâchement boobu mën na ko tëb ba école école bi mënul mënul continuer à l'école donc finalement mu retrouvé wu ci mbedd yi di consommer di gens di sniffer di di di di di fanaan si mbedd yi ensuite yooyu même bu en général sax même bu fanaanul si mbedd yi mën na nekk si biir kër mais moom mode de fonctionnement comportement comportement violent lay am mm-hmm. Mm-hmm. donc tout ça c'est relâchement ci éducation bi la ak euh, usage souvent de la drogue bi nga xam ne duñu ko wax mm-hmm. genre sa mbokk mi wala sa doom mu ngi koy jël mais tu te dis du loolu. Mhm. dañ ko liggéey. Mhm. voilà d'accord euh, en plus de cela ñu ci bëri jàpp nañ ne euh, certainement bu ñu yóbbu seen doom yi ñu dem ci ay consultation psychologique wala psychiatrie y a le regard de la société kii de doomam euh, xel bi neexatul xel mi wératul ba moom moo waral xam naa ñu bëri dañuy gis ne seen doom mu ngi jëfandikoo naka su noonu am na ay comportement mais terewul dañuy préférer préféré garder ko à la maison wala ñu bàyyi ko muy dem euh, loolu aussi faw ñu taxaw si def si ab jàngat. waaw loolu aussi yow ñun gis nañ ko on a vu que yenn saa yi nga gis xale bi kër ga par exemple mu am mu am une anomalie physique. alors famille bi lu ñuy def bu ñuy amee gan sax ngay gis ñu ne ko yow nekkal si biir waaw ñu nëbb ko moom bëgguñu ñu gis ko bu bàyyee alors drogue bi aussi dañuy gis ko comme ni ma la ko waxee bu ñu xam ne seen doom ji ni am na c'est un drogue patenté reconnu parfois même violent mais fuite de responsable parce que bu ñu ko yóbbee hôpital eh, souvent aussi y a les perceptions sociales wala interprétation ñu naan waaw kii si surtout sur la femme que lay reposer wu naan euh, pas un bon exemple moom mooy jur yoo xam ne lii ak lii lii ak lii ak lii c'est c'est du de la femme foofu la ko jëlee waaye mm-hmm. alors bi aussi pour euh, éviter yooyu préfère que ñu denc xale bi mm-hmm. comme ça ñu kenn du leen xamal dara kenn du ko ko euh, culpabilisé vous donc c'est pourquoi on a ce problème là yenn sa y a de ces yi nga xam ne mënoon nañ koo faj mënoon nañ ko yóbbu hôpital euh, pour faj ko mais famille duñu participer à cause de ces considérations mm mm-hmm. euh, euh, certainement loolu mooy jur yenn saay bu ñu demee ba euh, def naka sudul noonu faat wala def benn violence da ngay gis famille yi nga xamante ne ñoom ñoo ko gisoon ñoom ñooy njëkk brandir ay ay ay ordonnance ay ay ay certificat médical pour xam le ne donte def na crime bi mais il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales mu mel ni dañuy bàyyi ba affaire bi rëcc leen ñu bëgg a euh, génn pour indi ay justification souvent dégg ñu naan la waa ndogal yàlla la wala du wala vraiment pourtant kii melul woon ni kii ku ku baax la woon waaye alors que le signes d'alerte normalement signes d'alerte yoon gisoon nañ xamoon nañ ne kii kii buñ ko buñ ko artewul buñ ko buñ ko artewul fii lay mujj bon avec maintenant la complicité voisinage parents yi ñoom ñëpp ñu ñu bàyyi jusqu'à ce que le mal euh, soit fait après comme ni nga ko waxee nag ñu génn nag bon peut-être jàpp ku nekk def li mu war a def pour yóbbu leen ko jënd ordonnance tout ça alors qu'il pouvait faire ça avant xale bi ñu ba ñu stabiliser ko psychologiquement bu dee médicament la aussi psychiatriquement ñu ñu stabiliser ko. Mhm. malheureusement ils attendent que le mal soit pour que ñu finalement ñu ñu venir euh, mettre faire le médecin avant la après la mort. mu mel ni kon euh, am doom boo xamante dafay jëfandikoo dafay nekk benn fardeau bu luux ci yenn wayjur yi ba moom moo waral tey dañ ciy teg seen tànk à ce que sax mu mu mu gaañ parce que ba kenn aussi donte moom euh, xelam nekk na fi wala nekkatu fi mais douleur bi famille bi di di di di après impact bi kenn mënu ko xayma. voilà c'est ça léegi yooyu noonu bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko teelee gis bu ñu artu ko ñëpp lay arrangé même waajur yi dañ koy arrangé keroog am benn daam ñëwoon na fi naan wala man dama buggoon nga jàppale ma hôpital bi sama doom bi dafa wéradi hôpital bi mu nekk bëgg naa mu nekk foofu mu bañ a génn. Mhm. alors que gis nga hôpital normalement c'est bu ñu amee ku wéradi ñoom dañu lay may dañu lay faj ba durée moins de quinze jours bu paree tu sors. te 15 jours jours yooyu parce que dama woote foofu ñu ne ma il faut un accompagnant parce que xale bi indiwoon parce que yaay a dafa sonnoon si moom. yu ñuy wax parce que dañuy gis sa doom muy muy def naka su lu dul noonu nga bàyyi ko noonu ba mu continuer ba mu am problème. Mhm. après na nga naan wala jàppale leen ma mu nekk hôpital mu mu mu mu dëkk hôpital. ni ko non mënul dëkk hôpital. waaye mhm. mhm. donc moom de en quelque sorte abandonné na. parce que citéwul saa jëkkër ji moom ci boppam la ci ne ma frère gi moo ñëwoon frère gi sonn ñibbi léegi man voilà man ma jàpp waa waa mm. la bëggoon mm. comme relève amul mu te quinze jours yi mat na dafa waroon génne ñu ñu na di waaye mm-hmm. ah, mm-hmm. ah, ah, mm-hmm. yooyu yëpp vraiment bu bu buñ collaboré woon au début dans l'éducation instant yi ni xale boobu parce que vingt ans la ma waxoon kii li mu am mënoon na nekk sur les bancs de l'école wala mënoon na nekk dans une dans un centre de formation mm-hmm. comme ça mu jàppale ko jàppale boppam jàppale euh, société mm-hmm. euh, tey jii fii ci Sénégal am na centre yoo xamante ne xam naa ne am na yu fii bu nekk peut-être caaro yi ak bi nga xamante ne moom moo nekk fii ci Fann mais ndax am nañu assez de centre yoo xamante bu xale bi commencé dévier particulièrement xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci cursus scolaire euh, dévier ndax am nañu vraiment fu ñu leen di dugal euh, pour après bu ñu génnee ñu mën a euh, ñu mën leen réinsérer ci vie sociale bi voilà ça dépend <clears throat> am na bëri na ay AMO ya am na ay centre AMO ay AMO c'est des ay centre de sauvegarde la xale yi délinquant xale délinquant yi lañuy lañuy la ñuy recueillir ma sur le plan juridique xale yenn xale yi def ay crimes yi mënuñu leen yóbbu prison. Mhm. léegi si centre AMO yooyu lañ koy lañ leen di yóbbu am na ñu nekk géej géej waaye fii un peu partout dans les dans les régions dafay am ko léegi centre yooyu euh, foofu c'est pour une réinsertion dañu leen jàngal ay métiers. activité yu bëri comme ça bu ñu bu ñu demee ba à la majorité même bu bu ñu génnee dinañ am au moins foo xam ne mun nañ si jàppandoo en attendant mm-hmm. en dehors de ça am na aussi ay centre de réinsertion sociale y a des centres de réinsertion sociale yoo xam ne xale yi les déchets scolaires mën nañ leen euh, récupérer orienter leen à ces niveaux pour euh, ñu jàng fa ay activités yu bëri. Hmm. oui oui ndax ñooñu seen pourcentage bëri na ñu nga wax les déchets scolaires. voilà bon en am xam nga rek bon actuellement il y a beaucoup d'efforts de sorte que xale yi on a facilité am na du sorte que balaa ngay génn école di fekk vraiment mu metti parce que souvent xale yi om mën nañ la nangul mën nañ la nangul yenn comportement yëpp mais nga toog école moo gën ko nga ngër nga nekk dans la rue mhm. maintenant bu demee ba vraiment nga nga retrouver dans la rue am na ay CPRS ay centre de réinsertion euh, sociale professionnelle et sociale yoo xam ne mën nañ leen orienter foofu ñu mottali seen formation bu ñu waroon bu ñu waroon defal. Mhm. actuellement aussi am na yeneen type de formation c'est formation technique. da ngay ñëw ñu jàngal carrément métier. Mhm. métier ngay jàng si si si ci établissement yooyu. Mhm. donc euh, centre yooyu quand même am na. am na même bu dee bëriwul noonu mais centre yi quand am na peut-être que euh, actuellement peut-être la tendance euh, bi dem si multiplier centre yooyu centre yu bëri. je suppose que par rapport à orientation bi dafay nécessiter un recensement orientation bon en bon en général am na ay métiers yu fii nii euh, bu ñu ñëwee si ci niveau boobu métier pas tellement centré nii mais bu ñu ñëwee euh, am na ay activités pratiques yu ñuy yu ñu leen di yu ñu leen di jàngal foofu mën na nekk bu bu dee les jeunes fii mën na nekk couture bu dee les jeunes garçons la am na yenn centre yu maanaam comme AMO yooyu on on jàppalan carrément soudure wala mécanique wala électrique euh, tout ça c'est pour que ñu mën leen réin réinsérer au niveau social après après voilà formation euh, euh, docteur wax nañ ko waxati ko def nañu ay jéego def nañ ay mesures de restriction mais mu mel ni phénomène bi eh, xale yi nekk ci milieu scolaire bi di utiliser lépp lu jëm ci wàllum sinébar wala ñuy utiliser li nga xamante ne moom mooy alcool wala ñuy sniffer comme ni nga koy waxee tey jii la wàllu gën a ay la preuve déviance bi tey la gën a jéggi dayoo concrètement euh, Euh, ban acte la ñu war a poser parce que à ce rythme euh, bu ñu sàggandul suñu ndaw yi nara sànku dina xaw a bari ñiy bàyyi jàng moom xanaa kenn waxatu ko. voilà loolu la loolu laa doon wax ma ci environnement école bi établissement bi d'abord xool li li nekk ci environnement bi est-ce que favorable ci comportement yu mel noonu. maanaam école par exemple nga gis école bu nekk euh, à proximité benn débit de boisson mhm. euh, alcoolisé vous voyez aussi euh, bi aussi dafa xool xale yi li ñu yor seen biir saak wala seen comportement au niveau si si récréation bi ñu au niveau de de l'école ñu xool seen comportement bi et en dehors de là-bas aussi parents yi aussi am nañ seen mot à parce que la drogue mën nañ ko amee si marché bi si si si si biir dëkk bi waaye yooyu yëpp ci euh, relâchement bu amee au niveau éducation bi si famille bi si si si ci ci biir kër mën na topp xale bi au niveau de de la rue ensuite mu ne au niveau de l'école donc euh, foofu yëpp boo boo gisee affaire recrudescence bi am c'est responsabilité c'est à tous les niveaux au niveau euh, parental au niveau au niveau social. Mm-hmm. au niveau social maintenant au niveau scolaire également waaye même s'il y a beaucoup d'efforts actuellement ñu koy def pour que mu mën a retenir les élèves yi ci école pour que ñu bañ a a génne école bi euh, quand même il faut situer responsabilité à ces trois mm-hmm. euh, euh, man dama yaakaar ne da nga xaw a jaawale société yi je m'explique parce que depuis tout à l'heure maa ngi lay dégg ngay wax c'est vrai que lépp lu jëm ci wàllum surveiller alentour école bi war nañu mën a mettre ay garde-fou xool lan la ñuy jaay ak lan lañ fiy dugal mais boo jógee boo duggee ci ci ci ci école bi ci boppam euh, surveiller xale yi xool seen saak dina nekk lu metti la preuve euh, xale yi kenn dooratu leen xale yi kenn yaratu leen euh, docteur di nga suivre actualité ñaata yoon nga fi dégg ñu ne benn élève amul sax dix-huit ans maanaam ba léegi mu ngi ci enseignement mm, mm, secondaire osé na lever la sur son professeur wala def na benn acte de déviance ginnaaw 15 ans ci ginnaaw wala 20 ans ci ginnaaw euh, certainement les élèves n'osaient pas ça tey jii boo ñëwee dima wax maître bi wala pédagogue bi dafa war a mën a vérifier foofu aussi mën na nekk benn dilemme parce que suñu société apparemment moomoo moo dépassé yenn yi wala amuñu assez de maturité pour mettre la poigne wala am assez de rigueur pour euh, recadrer yenn xale yi. waaw waaw loolu pourtant waxtaan nañ si un peu parce que xale yi au courage bi ñu am actuellement pour euh, ñu mën a consommer utiliser drogue si biir école wala courage bi ñu am pour euh, affronter seen jàngalekat yi. Mm-hmm. yooyu yëpp aussi boo xoolee si dañ ko dañ ko importer dañ ko indiwaale kër ga lañ la jóge souvent c'est li ma lay wax noonu problème problème boo gis chez mm-hmm. l'individu adulte. Mm-hmm. vérifier retrace boo ko retracé di nga dem ba jusqu'au niveau familial mhm. ba nga xam ne foofu la foofu la ko jëlee mhm. foofu nag bon en général duñ ko waxtaanee mhm. dañu wax ne ba parce que bon famille y a un climat délétère niveau famille moo tax xale yi sont pas éduqués wala ils sont violents wala vraiment ils sont déviants parce que souvent si biir si biir famille bi dañu gis euh, dañ jël comportement boobu nag ñu extéri extérioriser ko voilà vous voyez donc c'est pourquoi bon bon c'est compliqué mais euh, toujours sensibilisation bi ñun suñu rôle. Mm-hmm. au niveau de de de l'école mais au niveau professionnel suñu rôle c'est pour euh, ne pas baisser les bras. Mm-hmm. c'est c'est c'est un peu quand même parvenir à sensibiliser réduire le mal fléau bi. Mm-hmm. réduire ko mais peut que mun duñ ko mun a éradiquer complètement mais à force de communiquer sensibiliser defe naa nañu wàññi considérablement le fléau de la violence wala drogue au niveau de de de, de l'école. Mm-hmm. mu mel ni sas bi yombul. yombul c'est ça justement moo tax ma ne la duñu duñu mën waruñu si taay muy les parent mooy les les éducateurs muy les professionnels les psychologues au niveau hôpital ñëpp war a vraiment collaborer pour que sensibilisation bi continuer permanemment. Mm-hmm. Euh, parce que la drogue est là yomb na am na. Ah. Mm-hmm. drogue si fii c'est tellement facile nga procurer wu drogue. il y a énormément de de de substances substances yi nga xam ne ils peuvent avoir sur le marché li ñuy sniffer l'alcool tout ça c'est c'est facile avoir sur le marché. waaye mm -hmm. donc seule la sensibilisation peut peut ñu jàppale jàppale ñëpp pour que problème bi wàññeeku. d'accord euh, docteur Mamady Kébé mënuñu def émission bi te waxuñu ci lépp lu jëm ci wàllum euh, euh, psycho psychologie bi nga xamante moom mooy ci wàll bi ngay yëngatu tey jii bu ma la doon laaj euh, comment se porte la psychologie de manière générale au Sénégal lan nga ñu ci mën a wax. bon psychologie c'est un domaine très vaste. Mm-hmm. c'est très vaste boo xoolee am na psychologie sociale. Mm-hmm. am na psychologie clinique. Mm-hmm. am na psychologie orientation scolaire information scolaire et professionnelle vous voyez maintenant yow kee sa question bi doon ci sa euh, ci fànn bi ngay yëngatu boo ñu doon defal euh, benn jàngat jëm ci psychologie de l'orientation hmm. euh, comment ça se au Sénégal voilà actuellement bon il faut dire que am na peut-être peut-être y a beaucoup d'efforts mais il reste encore à faire parce que boo xoolee comme ni ma la ko waxee psychologue conseil yi presque xamuñu leen Mm-hmm. xamuñu leen lu bari pourquoi lu tax xamuñu leen c'est aussi boo war lee moyens yi ñu am moyen moyen d'action yi ñu am pour que pour que askan wi xam leen moyen yooyu presque nekku fi da ngay gis que psychologue conseil nekk fi presque euh, même pour def seen seen activités yi parce que activités yi ñuy def au niveau de toutes les toutes les classes toutes les classes des grands établissements muy troisième ba terminal war nañ fa dem de waxtaan ak ñoom faire des des des séances d'information xool pour les orientations pour détecter les difficultés des élèves amuñu les moyens là. Mhm. parce que euh, on a vu comment ils fonctionnent donc vous voyez euh, à peu près maintenant <clears throat> sur le plan maintenant de l'orientation avec euh, initiative yu yu bees am ni on peut penser que y a des y parce que. y a des établissements techniques. Mhm. am na établissement technique ñu créé nii c' est des lycées techniques fii on ay ay métiers leen di jàngal fii nii donc on peut garder de l' espoir par rapport à orientation bi ak euh, par rapport à l' information euh, scolaire et professionnelle. Mhm. Euh, justement par rapport à ça xamuñu leen assez mais est ce que yéen tamit à votre niveau di ngeen farataal di def ay sensibilisation ay journée porte ouverte wala bu journée mondiale amee ngeen def ci ay manifestation ay cérémonie bu ko defee askan wi xam ne eh, am na euh, médecin yi am na radiologue am na cancérologue mais tamit am na ay psychologue yoo xamante ne vraiment ils sont là pour euh, bu ñu soxlaa ku leen euh, gàgganti wala tàggat ñu xam porte bu baax bu ñuy fëgg alors il faut dire que c'est rare c'est euh, rare euh, euh, sikk yi y a les sikk séance d'information collective en général ñoom la moom moom la seen seen seen activité de prédilection bi moom la ñuy gën def au niveau des des des classes de troisième de troisième waaw quatrième terminale pour pour les informations maintenant en termes de de publicité journée porte ouverte peut-être que c'est là yow c'est une bonne suggestion pour que suñu naataangoo yi jéem a euh, xam ne bon peut-être que askan wi xamuñu leen. Mm-hmm. ñuy organiser yooyu comme centre yi am na am na bu nekk Castor am na bu nekk Guédiawaye am na trois centre moo am biir Dakar. Mm-hmm. beneen bi nekk Rufisque ensuite maintenant au niveau de chaque région am na benn KOSP ñoom mën nañu organiser activité yu mel noonu journée porte ouverte pour euh, vulgariser au moins euh, le service mm-hmm. ak euh, les professionnels psychologues conseil ak activités yi ñuy dem. Mm-hmm. d'accord loolu dina nekk lu baax d'autant plus que xam naa ne seen temps moo leen ko permettre jot leen au téléphone sax c'est difficile à plus forte raison def émission journée sensibilisation wala porte ouverte nag moom xam naa ne da ngeen ciy xalaat ay weeri weer laata ngeen di jàpp jour. et am na beneen aspect de la prise en charge si tax na boo xam ne boobu kenn duñu xam parce que yenn yenn difficulté euh, yi nit ñi am au niveau individuel. Mhm. moo tax boo ngeen doon psychologue. Mhm. nga dem expliquer ko am yooyu euh, yooyu noo ko yooyu c'est c'est c'est crypto personnel. c'est tabou voilà c'est aussi yooyu yooyu mënoo ko wax. Mhm. mënoo ko wax keneen mais tu fais ce travail là quand même ñu koy def. boo xoolee ñoom si seen activité en dehors cycle yooyu de d'information collective yooyu mën nañ am des des prises en charge des accompagnement des soutiens psychologiques mais ça c'est au niveau de la communauté. yooyu mënoo munoo ko c'est comme un médecin bu recevoir un patient. mënu mm-hmm. ko mënu ko divulguer mënul expliquer ce ki fait. Mm-hmm. yooyu tamit day am. Mm-hmm. Euh, c'est comme un médecin bu recevoir un patient mais eh, ñu bëri dañu jàpp ne boo demee xool psychologue wala psychiatre rek euh, certainement sa xel dafa dem ba moom moo waxal euh, sénégalais yi def yenn consultation psychologique yi docteur xam naa yombu leen trop. oui mais c'est ça aussi mais ñu bëri loolu la mais yooyu aussi bu ñu ko bu ñu ko mettroon à côté. Mhm. mënoon na aar lu bëri parce que dañuy gis problème euh, psychologique ou bien trouble psychiatrique maanaam. trouble mental boo gisee mu ñëw c'est parce que c'est ça a été latent mhm. euh, yàgg na commencé mun a commencé par des névroses névrose bi ñu yàgg si yow gérer y a une bonne gestion de la névrose névrose boobu mën na dem évoluer ba mu nekk une psychose psychose yooyu nag mooy jur la violence parfois nga dégg ne benn ku wéré di rey na nit wala wala l'irréparable a été commis quelque part mhm. alors que mënoon nañ ko au lieu nga stigmatiser le psychiatre wala le psychologue boo amee une interrogation dans ta vie d'une certaine manière mën nga approcher le psychiatre wala bu dee c'est pas un problème euh, mental mën nga gis un psychologue expliquer ko tu viens tu te déverses mm-hmm. nga wax ko sa soxla wala sa sa préoccupation yëpp expliquer ko mm-hmm. euh, euh, loolu mën na éviter lu bëri mm-hmm. d'accord docteur nag xam naa ne du ngeen di farataal di bëgg ñu wax ci lépp lu jëm ci wàllum koom mais est-ce que consultation psychologique aussi aussi et c'est à la portée de, de, de tout le monde aussi pour ñu ñu synthétiser. voilà donc mm-hmm. pour euh, mu am comme je te l'ai dit am na psychologue clinicien. Mm-hmm. am na psychologue conseiller. Mm-hmm. psychologue conseiller en général ñoom ñëpp c'est des boo soxlaa am psychologue conseiller doo fay dërëm. sa doom am na gis nga des problèmes au niveau de ton enfant mën nga dem au niveau de psychologue conseiller tu ne amul ticket bi ngay fay amul. et tu viens mu mu gérer mu mu vous gérer ensemble la situation. Mm-hmm. même un problème personnel mun nga gis le psychologue conseil parce qu'il est fonctionnaire. Mm-hmm. moom du la du la taxé. Mm-hmm. maintenant am na psychologue clinicien ñi fi nekk ñoom en général c'est pas des fonctionnaires ñoom dañoo yor seen cabinet. voilà ñooñu bon pratiquement xawma comment ils facturent euh, voilà leur séance voilà mais pour ce qui concerne le psychologue conseil en général ñoom ñëpp amul ñoom ñëpp c'est des fonctionnaires ñoom boo amee problème ñoom foo boo fa demee doo fay dërëm. voilà c'est comme un médecin bu nekk dans un centre de santé. Mm-hmm. il est différent de quelqu'un qui est dans un dans dans son cabinet. voilà d'accord euh, waxtaan wi am na solo waaye dafa mel ni eh, docteur Mamady Kébé liñ ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca. waaw merci de toute façon maa lay ngi lay gërëm di la di di di gërëm aussi waa Rewmi FM. Mm-hmm. et je demande que aussi séance yi nii souvent boo amee thème rek. thèmes yi bëri na. Mm-hmm. tey peut-être que sur la la santé mentale en milieu scolaire. Mm-hmm. on no toujours peut-être on peut voir ensemble yeneen thèmes de société yoo xam bon c'est important. Mm-hmm. boo si nee nous on est disposé ci à tout moment boo boo ñu soxla ñu ngi fii le euh, chef de division docteur Tine est là beneen collègue psychologue qui est là donc euh, ñun ñëpp on est ouvert mun nañ la mun nañ la recevoir et échanger ak yow. autant que possible. d'accord euh, en tout cas. Voilà, euh, merci beaucoup docteur vraiment euh, pour sa disponibilité bi ñu la euh, soxla émission moom xam naa yàgg na trop trop trop jox nga ñu rendez-vous faussé ko joxaa ñu rendez-vous faussé ko mais cette fois si moom c'était la bonne certainement moo tax ñu saisir occasion bi sant la bu baax a baax gërëm la bu baax a baax docteur di kebe ma fàttali ne mbokk auditeurs yi yéen a ngi doon teew lu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag tey amoon mbégte ak bànneex dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Mamady Kébé nekk psychologue conseil à la division de la santé mentale foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale waaye nekk li nga xamante ne moom moo di psychologue conseiller particulièrement ci milieu scolaire sant ko gërëm ko waaye tamit mbokk auditeurs yi sant leen gërëm leen fàttali ne Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekkoon ci bi ngeen jëf ci déglu émission ak beneen invité